El Hadj Kayda El Hadj Kayda tey El Kayda tey barke Serigne Bamba boo ko doon si musique tey Ousseyn ngay comparé rek wallaay. Dakar Bercy LP Events ànd ci ak ñi nga xam ne mooy Subatel Musique ànd koog ndaanaan kullu fadilin nee naa leen kooku mooy le golden boy de la musique sénégalaise waaye ñenn ñi di ko woowee le Mbappé ndax mënam ak tabaarkalla macha allah na mu mel ci musique ah doy na waar Sidi Diop stadium Iba Mar Diop. lu ma def lu dul ànd ak sama caméraman Balde ñu xuus xool sañse ak li nga xam ne mooy woy ñoom fay ñu dara deux cent la war a dóor Baye Fall Didier respect depuis deux ans si fii amul man je suis artiste Baye wala boog lan la deux la war a dóor Euh, kenn dootu ko présenté nak waaye xam nañ ne euh, Sidi Diop fépp fu ngeen ko seen da ngeen fay seen Fallou parce que mooy président fan club Sidi Diop Fallou maa ngi lay nuyu. waaw mais maa ngi leen di fee di leen ziar ñëpp ah di jox seen waaj waay comme dab rek ne ma koy defee. tey ku wax artiste wax fans waaye rawatina nag ki nga xam ne moo ci sonn mooy président bi donc tey naka ngeen euh, dundee bés bi. waaw kontaan rek ak mbégte ndax parce que euh, bu ñu demee ba Sidi tëgg stade Iba Mar ñëw nga xool mbooloo mi rek sa xool day sedd tey jii boo wëree sa bët boppam daj mbégte rek nga da naan bu fi yemoon tey mu neex Medina dañu bëgg Sidi dañu bëgg Sidi rek wane nañ ko. Sidi Diop ñu koy woowee le golden boy waaye man tey dama naan ko mbappe parce que tey ku xool ni mu def stade bi da ngay xam ne très sincèrement bu nekkoon match la ma ne mooy seen Mbappé li muy dribblé xajul ci gars yi donc tey naka ngeen def ba réussir bés bu mel ni mais sant yàlla li nga wax rek Mbappé ndax dama jaar fi mu war a jaar nag jaar fi ay magam jaar mu ñëw ba nekk numéro un man numéro un la si man numéro un la si ñëpp nag. yow Fallou eh, yow Fallou nga fit de. Eh, boo amee ndaanaan muy way. ah Sidi kan moo ko daaxawee. ah man da man man man waxuma ne. <laughs> Sidi kenn daa ko way. naan naan mooy koo xam ne loo ko way loo mu way ko. te Sidi yàlla na ko may loolu xoola ni fi nekk. Sidi loo ko way loo mu way ko. te si xalaat du xalaat du réfléchir ne ko wayal ma lii rek fi mu toog la koy def. et ce qui me plaît le plus dans sa carrière. mooy que dafa ñëw imiter nit ñi wan na leen que mën na naa fu ne. waay ñëwaat ci ton boppam ba pare demaat feneen si bu ñu xoolee singalam bu mujj bi Saalum Saalum. Mm-hmm. donc beneen euh, euh, émotion la lay dundaloo. xam nga gars yi dañ naan way na wayu ñëpp non non dafa ñëw wan ne war naa way wayu ñëpp ba pare génn wayam teg xam nga Sénégal. duñ seetlu ndaanaan ndaanaan mooy ki nga xam ne loo ko woy loo mu mu woyal la ko Sidi boo ko woyee si reggae mu ñëw si reggae Furaana mu ñëw rap mu ñëw mbalax mu ñëw ngoyaan mu ñëw lool boo ko woyee si jàng yi sax mu ngi acca kon Sidi buñ ko considéré maan mais nañ ko considéré artiste artiste moo bi def lu kenn deful. tey lan ngeen yëfe Sidi lan indi tey. lu garaaw xoola xoola scène bi. gis naa scène bi mais tey Sidi dugg la laa bëgg en tant que président fan si club. yow xam nga ci dara. dugg si bu garaaw. bu yéeme. bul ñoo xam ne. déplacement bi di wax ni kontaan rek ndax lii moom bisu mbégte la quoi ni ko gars yi di waxee lii bisu mbégte la lii dafa neex. Sidi mooy la Mbappé de la musique sénégalaise. se voit que ne na booy Sidi ngeen doon wax léegi xanaa grand Sidi ñëw na. waaw Sidi maa gën a parce que ku gis ay wayam depuis boobu ba léegi xam ni mi ngi évolué ah, boo xoolee boo toppee Sidi ah génne na yëngal génne cak-cak génne jaagu mbaas génne génne cas bi ak yeneen ak yeneen ak yeneen kon Sidi mi ngi liggéey ah waaw mi ngi liggéey bu baax a baax a baax te nekk na loo xamante yi nii tamit senegal yëpp te nañ seen bët ñëpp xam nañu Sidi mi ngi liggéey leen daal moo fi am mooy iñaan ak soxor ah. mañ koo yéen a jàmm daa am foo bëgg a laal bu baax sax fan la xam nga fan laa bëgg a laal gis nga àdduna boo bëggee boo bëggee am dara da ngay gëm sa bopp Wally Seck lu mu am ci musique xam nga lan moo ko may daa gëm boppam. a ah, kon yow. ah su ma juumul Sidi ak Wally Seck Wally Seck daf koy ñaane. noo noo Wally Seck magu Sidi Diop la dama ne la Wally Seck fi mu jaar ku fa jaar dàq ban ah. Wally Seck daa bappat gars di ko sànni xeer muy gérer di gérer di gérer ba yàlla may ko lu mu am. mais Sidi ak neexul. bu baax ñu ngi neex. ah neexoo bojo bojo yi nekk ci ci ci ndaw yi artiste ndaw yi ñoo yàq ñoo yàq aar bi. man dégg naa Sidi Waly safara ak ndox la. Sidi Waly comme àjjana. <laughs> maa may sa bigé may sa bigé maar aju naaw nga de seen doy càkk dem ba ca Lambaay. dégg nga lii doo ñun ñun vraiment ren. Ah. yaay sunu mag Mariasine jëlal. ah, ah, ah léegi nag léegi Sidi bu ma jugee Sidi Waly. waaw léegi Sidi ak ñi fi nes. waaw comme li may wax rek xale yi nañ liggéey. mais tey El Hadj kay tëgg non El Hadj moom daa juum fekk si leen dóor leen loolu ñaaw na fekk si la sa tëgg ba pare dóor mais booy yéen am ngeen fit de El Hadj daa juum <laughs> nee nañ ko ñun ñooy Mbappé ñun ñoo moom Medina ah. barke yonent bi du ay caaxaan Medina ñun ñoo ko moom ñoo fi njëkk a teg concert moom moo ngi nii dama bàyyi ma waaw billaay wallaay taalaay Medina ñun ñoo ko moom El Hadj daa juum kenn du xeex ak Mbappé Mbappé daa xam nañu Mbappé moo Mbappé une deux trois minutes kaay dugal na match bi waaw Sire Diop il a il a remporté lii lépp ngi nice waaw ana Tarba ana Talla Diassaka Tarba dégg naa mu woyal leen benn woy eh <laughs> léegi <laughs> non Tarba non Tarba foog mu liggéey. a nga bu la mënee Tarba eh, eh, Tarba daa mën de. man man rus naa nekk doomu géwal géwal ci ndey géwal ci baay ah munu munu ma def der. ah yaa ne Tarba munul der waaye ay woy dëgg waaye boo ko bëggee dëgg ay woy dëgg da ngay déglu Sidi Diop wax dëgg yàlla. waa Sidi mën na mais Tarba it mën na. lu waa léegi wax ma yow Tarba lan la fi way. ah mi ngi bëggal nit ñi. la waa waa Sénégal yéen laay posé question lan la fi Tarba way téye leen ko téye naa lay nuyu. sant yàlla ñu ñoo ngi nee di bàyyi di bàyyi sant yàlla rek bàyyi yaa xam nga ne yow ñu ñun carrément ay doomu Médina la ñu su gars yi xewlee dañ dañ des war a jàpp nañu ay jeune la ñu et stylistes la ñu au même temps moo tax man carrément ñu jàpp ci bis bi 100 pour 100 Médina bi ñun ñëpp ci biir. yow doomu Médina Médina am na beneen xew tey nga ñëw fii pour jàppale Sidi Diop. non jeune la moo tax dafa bokk si ñun tamit carrément ay jeunes la ñu du du comme ça daf loo xam te ñun. ñun i laa ba Bamba Ndiaye dañu kontaan ci moom ndax carrément woote jeunes yi melante ko ñu ñëw tal tal tal noonu dafa rafet trop moo tax waaw tey nga ñëw ci concert Sidy Diop gis stade bi ni mu feesee naka nga ko dundee non instant moom macha allah moom saa moom yàlla na leen yàlla lafal cet may leen gudd fan a wér ndax ndax ndax laa lii laa dafa neex ba mu tourné xool stade bi mu fees yàlla gis-gis a ferme instant moom macha allah ay nee naa le golden boy moo woote maa ngi lay nuyu. Ah, tur bi naka la. nga def baax na moo génn ci sa bopp. moo génn ci sa bopp. Ah, ana monsieur yow. moom mi ngi kër ga. da nga yeetal monsieur pour da ngeen xadi yéen dafa yeetal monsieur pour ñëw léegi yow nga ñëw gis Sidi Diop ni mu feesale stade bi yow sa xol mu nu muy dem. instant sama xol bi seetlu la def mais plus particulièrement nag Bamba Fall moo ma andi. ah Bamba Fall moo la fi indi. waaw parce que ñun si élément Bamba Fall lañ ko. tey daal dafa saf lool Bamba Fall. waaw man moom aw ma habitude di génn nii mais tey moom dama forcé parce que man damay teel a nelaw mais tey damaa forcé génn. mais sa sañ sa baax na. mais c'est simple rek. tey daal tey daal fii daal tey du yomb du yomb bu taree yomb moo yaa ma gën a xam Bamba Fall rek fas yéene tous sa xew mi laa Bamba Fall li mu def maintenant leer na ñëpp moo tax mënuñoo bu wootee mënuñoo toog sama magasin jaar sama mbokku jigéen rek ngeen def yéen ñaar ñëpp fas yéene jàppale si ñu jot ci xew waaw suñu góor suñu góor a ko waral moo ko jar ñoom ñoo jëppal jëppal waaw moom jëppal yow jëppal waaw léegi naka ngeen dundee tey li nga xam ne mooy merci Dakar bi si li Diop wax ah xanaa kontaan rek xam ni dina réussir te dina xumb dina neex incha allah lan ngeen di xaar si Sidy Diop lu rëy lu neex waaw incha allah bu neexee yàlla ah xanaa di ko ñaanal rek euh, fi mu visé yàlla yóbbu ko fa ci bàkki euh. Seydina Mohamed bàyyi ko fi lu mu mëbét yëpp mu yegg ci bu neexee yàlla yàlla mosoo ko si cat ak seytaane ci bàkki Seydina Mohamed a a a a Come on, bal leen xool ko moo di buubu. instant bi nga jaxase xel bi Motosalla, café noir baax na de nga laal ci sa zone nii. gis nga ko macha allah Sidi rek ko waral. tey nga ñëw ànd jàppale sa doom Sidi Diop. waaw macha allah tey ñu ñëw ci bisu Sidi Diop bi ngir jàppale ko ñun waa Medina ndax xam nga ñun Medina ñu ñor kon bu bàyyee fépp ñëw ba Medina ñun waa Medina ñëpp ay génn jàppale Sidi. non non ragaluma benn yoon Sidi laa àndal. Eh, man bëgg naa lii <laughs> man bëgg naa xale bu ñu ne na mu yee

daf ñuy bégal te mooy le golden boy de la musique sénégalaise donc bu wootee Bercy fii ci stade Iba dañuy bàyyi suñu lépp ñëw teewal ko. maa ngi nii sant yàlla bu baax. ana ñaari soxna yi. baax la. tey nga ñëw def sa kontaan d'abord sant yàlla julli ci Yonent bi salaam parce que Sidy bu wootee dañoo war a ñëw parce que suba férié la. te ñu ñëw rek ànd ak papa si la sant yàlla ku tiir ñëw teew ci bés bi comme ñëpp quoi. mais man damaa bëggoon nag ci yére olof rek nga mëne waaye ndeke yee wasa yëpp. waaw non ñun ay doomu banlieue la ñun dañoo foowee lépp waaw mais yàlla rek yàlla moom moo ñu suturaalee noonu parce que képp ku dëkk si banlieue bi xam nga ni sanc sa yëpp la noonu la demee. ñoom moom sañca seen yëpp def donc tey di confirmation Bercy Dakar la Sidi euh, naka ngeen di xaare Sidi Diop waaw mu ñu doon spectacle bu neex rek gars yi kontaan ñu bëggee waaw. dama ko oyofal rek. sumal leen ma xale bi dama bëgg ngeen sumal ma ko ma sa ma sa tàggat. tey Sidi Diop woote Bercy Dakar muy confirmation naka ngeen koy xaaree. ah Sidi Diop ñu ngi xaar bu baax mu nekk artiste mais mais nga laal sa sa sëb bu toog laal sa rob man ni daf may neex bëgg naa xale bu ñime ba pare pare ci boppam. ah waaye gis nga nit amul nit amul lu dul sa bopp asaw da nga war a def solo de sañse. daal tey daal tey da ngeen a fas fas yéene ah, rajo xew. ay benn si dañ koy toj waaw waaw seet si di Diop indi na indi moom la fi indi mais. ki ma gën a yokk ma ñëw ma jógee ba Bambilor ñëw mooy LP Evan moom moo tax ma gën a sawar ci ñëw bi Thank you. téléphone yal na sa yaay booy fekkee sa njëriñ dund boobu ci kaw ku ci jàpp sa téléphone yal na sa yaay fekkee sa njëriñ ku ci sa yaay booy rek ne nii ma xool à l'honneur de Sidi Diop ci biir boobu s'il vous plaît bi ñëpp ñëpp s'il vous plaît fii ici ici là on est là là là s'il vous plaît gars yi tàllal sa téléphone le téléphone yi Yes. Ici. Yes. Ici. Il y a des gens qui font. Et maintenant, regardez le phénomène. Regardez le spectacle. Voici. Tout le monde Le grand professeur Marcel Chimaguel La karibia sénégalité Kapaya ko pambanale ko bon Nit a ngi jiim di def lu bon Te xamul fan yi mu dee Ay diyam ci borom Ordinate ko di ak dem liggéey Booba ma ngay liggéey Yes, yes Yes, dañuy débuter soirée bi dañuy commencer léegi léegi léegi dama leen di ñaan Sidi il est parmi. Regardez, c'est parti. Matar Friwle ñu ala gina ko daan jël ala yee defar fi di famille Sénégal bëgg naa ku ci mel ni Pape Modou sunu waay wante du ma fàtte sama président Fall fini famille fu banabo ay waay yaroo baax boo di ko nit di jiima yaroo dina baax fu baay ma natu I love waaw li ma ciy wax rek mooy mbégte la ndax vraiment ñi nga xam ne ñoom ñoom moom bis bii Euh, muy muy muy ñi nga xam ne ñoom ñoom petit ah ñoom ñoo ma euh, jël ci événement bi vraiment ça fait ay mois ci ginnaaw wax ak man wax ak sama staff xam nga daal di nag euh, fas yéene woon man ñëw ci événement pour liggéey ak ñoom boobu benn point la beneen point bi ki koy tëgg sama rakk la di Diop ku nekk dégg li mu woy jërëjërë yi ba pare woy ma loolu àdduna yëpp dégg nañ ko mais bis dafay neex bis la boo xam ne àdduna ñoo ko pare bis la boo xam ne nit ñi ñoo ko bëgg ndax ku xool fi ne macha allah xam ne daal vraiment Sidy nit ñi bëgg nañ ko donc li ma ciy dolli rek mooy yàlla na yàlla dolli jàmm ndax boo liggéeyee rek di nga fayee ko en tout cas ak waa Subateel vraiment ñi ngi liggéey liggéey bu am solo di ci jiital nag suma nijaay suma xarit muy maxu teel donc maa ngi koy ñaanal yoonam yàlla na gën a oyof fi mu bëgg a àgg yóbbu fa musique bi yóbbu ko fa donc nag euh, di wax tamit maa maa ngi gërëm sama waa label ah waa jërëjërë maa ngi leen di gërëm ànd ceeg di wax na fii man damay <laughs> dem summee ku ñëwaat ndax damay yéegaat ci kaw soow jërëjërë bi foog ma ñëw am lu ma ci def waaw loolu moom mënut a ñàkk mais bagaay xam nga nag euh, moment bi mu tombé la ndax ku nekk xam na ne dañoo nekkoon ci corona beeg affaire yooyu mais gars yi ñu jox leen benn morceau boo xam ne gis nañ ne àdduna ñëpp ñu ngi koy dund ñu nekk ci préparation bi ak euh, di ko clip di pare incha allah aussi le 13 novembre banlieue moom pari boobu nag maa ngi leen ciy woo yéen bëgg naa ngeen teew fa. Sidi Diop euh, Bercy Dakar. waaw Bagaye Mbaye. banlieue moom Paris waaw banlieue waaw xam nga nag ñun suñu banlieue bi mooy suñu Paris mooy suñu fépp. donc événement la boo xam ne def naa ko première fois mu nekk événement bu dépassé bi nag mooy deuxième édition bi donc di wax ne banlieue bi ñoom ñooy dalal gan ñi mi ngi war a amee Ravin le 13 novembre donc di wax ne gars yi bis boobu ku fa ñëw di nga gis lu doy waar. incha allah. Eh, ma ñëw ma ñëw ma ñëw ma ñëw màgg na wala màggul feeg 30 minutes ngeen ko xam ni Sidi màgg na wala mais li ma la mën a xamal laa ba xamal la mooy Sidi dafa nekk suba teel ragalul buuse Abdou Karim Messi Baye Niass Sibyl Porem Souley Awa Laye ak ñeneen ak ñeneen awa ama gi maanaam dama bëgg Sénégalais yi xam ni suba teel lu école centre de formation la bu la jàppee ba bàyyi la boo génne yaa raw Messi léegi la la bee suba del bi nga génne tey si nga génnoon tey carrément tey si sow bis sow bis amatoo kan moo dee ambiance kan moo dee ambiance du bas nangu nangu nga. Sidy Diop nangu wala nangu na Ibra nga. nangu na waaw léegi lan nga bëgg yow lan. mais ñeneen ñi nangu. Sidy ka nangu. nangu. naa ñëpp. non nangu naa leen. mais Sidy c'est le centre du peuple. comprends nga fii Médina la de bokkuñu dëkkuñu fi de mais Sidy moo tax ñu am fi cër. parce que c'est le centre du peuple monsieur la maire Bamba Fall Sidy Diop la àndal parce que il est le centre du Elaj Keita mu ngi si na réussir yàlla na réussir bu baax baax parce que bu réussir rek musique Sénégal moo gagné comprends nga. mais Sidy jamono gii boo bëggee dégg-dégg heure bu duggee si concert yeneen artistes yi xam naa leen tuddee levez votre sadoise. donc dañuy ramasser les copes. yow déggoo du seen morom yéen journalistes yi boo leen nekkul ay naafeq. xam nga ne du morom benn booy yow ay booy yoo xam ne boo demee boo demee EDK boo demee Osan euh, boo demee supermarché boo demee luuma doo dégg sa son yow mos ngaa dégg sa diggante yàlla dox sa koñ gis benn booy buy woy ay ay woy bu woy booy yan booy ah, non ay booy am na ay morom Ousseyn du jeex waaw mais mais mais mais mais booy mel ni turu. non eh, xoolal yow eh eh ma Sidi gaynde la mais El Hadj Kayda El Hadj Kayda tey. El Hadj tey barke Serigne Bamba boo euh, ko si musique tey Ousseyn ngay rek wallaay. ah du samay wax. nee na El Hadj Kayda eh Bamba wax wallaay moom Ousseyn ay morom lañ rek c'est que Ousseyn daa bar rek moom barul daa bokkul quoi Ousseyn la Ousseyn la réew mi gën a xam sax. kon tey defante la la wax ni yow Barça nga bëgg a tëggal ak Liverpool dof bokkul. Barça taay Robin Robin ah, waa léegi Barça nga tëggal ak Liverpool. mais Barça léegi Rido Maïga la. jàmm rek nañ ñaanal Serigne jàmm ñaanal El Hadj Gueye jàmm xam rek parce que lii soo bis la quoi dañuy foofu quoi lu dëgg parce que kenn ku ne sa njaboot nga yóbbu El Hadj njabootam lay yóbbu Sidy yóbbu njabootam xam nga da Bamba Wally dëggee nee Sidy dëggee nee léegi ànd bi mën nga maa génneel léegi. non même juraay yi. non damaa bëgg a xam lan ngeen ci def. non fan bu juraay la parce que bii moom musuma bu mel nii bii musuma koo gis. këpp ku fi këpp ku fi dem këpp ku fi dem maa ngay génne da ngay daw rek. laay ah kon loolu lépp daf fee am. te jàmbaar yaa ngi si ginnaaw toog ba Sidi dugg Sidi ci lu garaaw. te damay laama Ibrahima. man tey suba am na ay affaires yoo xam ne jot nañ ko fee xëpp mais affaire yi affaire yi doy na waar de. 54 <laughs> régions laa dem. Ah. weesu naa Sénégal xam nga Sénégal 14 régions la dem naa laal naa Mali jël région Mali yi jël région Burkina yi la boo ko boole mi 54 régions daa xëcc booy dama leen eh dama leen di duma de. kon affaire yi daal faw cumbukaay boo bëggee dem. non en tout cas ñun daal suñu adresse mooy ñor. ko pont jam bu ko paaka laal. kan ngay boyal fii. dimbali ma eh, yow koy boyal fii El Hadj ah, ko fi wax léegi nga ne moom carrière Ouzin Keita la yor. kee day dër waaw carrière Ouzin Keita la yor waaw mais nag champion la nag nice parce que adresse moom booy rek nice quoi waaw nice. xam nga xam nga showbiz li moo koy neexal ay ruube ay ruube mooy neexal showbiz mais après kenn ku ne tamit da nga yóbbu sa kër quoi du dëgg da ngay ñaanal jàmm rek di ko ñaanal tawfeex rek bàkk sëriñ Bamba Mbàkke xam ni moom moo war a xam nag musique Sénégal mooy gagné quoi du dëgg mais daal Sidy guddi gii c'est le centre xam nga si dara si kanam naa la woonal kaay xool dafa noone di dore yéen naa ma say appel day am bambo wasa bi day am bambo kii di famille bu yëmbale yëg naa leen ay waay ko foog naa la lool ana li fekk na bàyyi ma te nga xëy bàyyi ma wit naa say affaire rek duma booy whatsapp bi na duma booy man si di jël sa jëmm ji laa la laaj te nga xëy bàyyi ma wit naa ma ci daw de daw de sama waaw mais yow ah sa balaa baax na de sa rob. merci euh, tey nga def nii ñëw ci xew bi naka nga waaje xew bi ak naka nga ko dund. parce que dañu ñëw rek seetaan si Sidi pour jéeri jéeri bi xam nga rek moo yëngal jamono instant bi. Sidi moo yëngal jamono mais ba xam nga ne yaa yëngal fii ñu ne. daayel tooñ danga may nax. dégg naa nag solo woo de da ngaa ñëw pour football. non dañu ñëw nii rek simple ko pour seetaan si yaa ma gën a armoire lii wadd rek ma sol waaw. <laughs> léegi euh, Sidi Diop woote Dakar tey di confirmation naka ngay xaare bés bi. instant bi daal alhamdulilah rek la ñuy wax agum waaw alhamdulilah la ñuy wax agum dina yeggal yëpp si kanam après ñu gis mooy loolu mënu nag wax comprendre euh, euh, nañ Sidi Diop na ñi ne bi tey. yéen naka ngeen koy xaar. waaw li si kanam raw li bët. xam naa ne xam naa ne I, I love you. fii benn yeneen ci moo am muy Seydina Muhammad fii benn buur moo fi am te mooy ki la mooy borom dara. looloo ko xamee. Sëriñ Bamba ne ko allo. lu ko ku fi am baat man maa la ko may. borom bi war. ah ci luy loxoy ci kaw waay tubaab bi ne ko lu mu ko wax si bi tubaab bi ne ko lan la ko wax bi ne ko lu mu ko ëllëg dinaa fi bàyyi ay école yi ngi di jàng sama làkk man Sëriñ Bamba ne ko lu mu ko wax dinaa fi bàyyi ku tudd Saliou mu yor daaray kurul njàpp nal xambaam xuraan no Sëriñ Bamba tubaab bi ne ko dinaa fi bàyyi ay ñu di ko liggéeyal ko fettaan. Sëriñ Bamba ne ko. dinaa fi bàyyi ay xasida mu nit ñi di ko jàng. tubaab demee ba sonn. lu mu laal. Sëriñ Bamba teggi. lu mu teg. Sëriñ Bamba teggi. waa du ngeen ma laaj fan la ñuy yóbbu woon maa ngi Sëriñ Abdou Karim. dama bëgg ngeen ne Shiloko inde Dakaro, Dakaro, inde Dakaro, Dakaro, inde Dakaro, Dakaro, Dakaro. suba teel neex na ma podium na ma waaye waaye sa naa fi je suis le danseur peuple. yaa may dégg dama ne. naa fi je suis le danseur du peuple. léegi loo gis. confirmé nga ko. léegi loo gis. non fi am keneen nekku fi di. te pareegu ma nag. Ah,

lan moo tax moom mu ñàkk wërsëg saa bu defee vidéo moom du bëgg daal lan mooy sa secret lan la lan la lu la toog. non dama bokkut ak ñoom dañu doon maat ñoom judduwaale la. judduwaale la. waaw. mais tey ku xam jëri xam ne def ko ci la tax son bi gën jëm kaw Sénégalais yi bàyyi ci kaw ah, bi nga koy def lan moo la inspiré. waaw foo rek xam nga lépp lu nit ñi def ñun dañ koy foowee ren bi dara dañuy foo nii rek nekk ci di foo gars yi di ko bëgg muy jàll. mais est ce que amul looy laal parce que sénégalais yi niñ la jëlee ak niñ la bëggee man damaa am na looy laal quoi. laalu ma dara sénégalais yi kenn mënu leen a nax sénégalais lu neex te dañoo bëgg tamit lu neex sénégalais mënoo ko nax si dara ndax ñoom dañoo xam lu neex. Euh, Sidi Diop di ñu gis ne bi nga defee sa TikTok bi sa téléphone ji yóbbu ko invité na la may la téléphone may na la kër ak oto ci li wax donc bëgg rek nga wax ñu sa diggante ak Sidi aw ma fayam gannaaw yàlla ak yonent bi moom la ndax bu ko neexoon tamit toog ci côté bañ maa lijjanti mais tey Sidy Diop moom mu buntu bii nii yëpp yaa ngi comprendre ñoom bas ñëw dugg sama papa ji Ibrahima naa yi tamit ñëw dugg gën maa jàppale waa suba teel ñëpp encadré ma moo tax. tey ñu lay xaar ci kaw seen bi lan nga ñu préparé la. waaw tey nañ xaar ci kaw seen bi. dimanche dama demoon Corée. Ah. ñu am problème mu Saloum mais liy problème bi ñun stressé wu nañ waaye bi ñu tegee saison fàtte nañ Saloum beeg yooyu yëpp te gis naa nga dugal ko loolu lan la la def. waaw loolu mooy mbégte rek waaw loolu costume la rek xam nga ku gis ba ñu ngay jëkk gis te loolu dafa ñëw seen xol féex yàlla na jàmm yàgg kon. costume lan mooy sa secret gis nañ bi nga dooree ak bi nga ñëw tarkalla macha allah lu waay di def te costume bokku ci neexul. waaw mais liggéey la rek ah ak gëm-gëm ak fula ak fayda képp nag waaw ñu gis ne yaa ngi waajal le premier janvier tey le premier janvier Equivox TV dañuy ñëw yéen a ngi ci ci moom sa teewaay dañuy laaj rek tey naka nga dunde bés waaw mais kontaan rek ndaxte Sidi moom euh, ndaw la waaye am na jom te mën na lu def àdduna nag bu defee bu bu defee Sidi mi tey ñëw Sénégal bëgg ko muy def lu mel nii ma nekk magam nekk xaritam nag ñu yàgg loolu aussi ànd ci nag ak Subatel donc tey lii euh, mënta ñàkk ma teew ci ndaxte euh, sot ci def si la rek. Mhm. gis nañ Sidi Diop entrem ak li nga xam ne mu ngi koy def ci kaw seen bi xam nañ ne yëpp ngeen ko lan mooy seen secret. waa secret moom mooy liggéey rek booy bi dafa liggéey liggéey rek mooy def lii donc nekk aussi ci comme ni ñu ko waxee sànq rek nekk ci loxo yu yu yu doy waar donc lii mënut a ñàkk spectacle nag la def bu extraordinaire te lii la te gaa yi leen soxla waaye neex na mais spectacle c'est important. mais Maxu Subatel yéen yéen euh, man dama gis ne tey artiste bu mu yor bu ne innovation bi day gaaw artiste bu mu yor bu ne da ngay saf ci làmmiñu sénégalais yi te loo génne mu neex lan mooy secret. koo koy Matar Matar a ëpp fit ci la yàlla bind. moom euh, jàpp na ni Sénégal tout est possible moom courage boobu la am ci moom moom moom moom moom lu mu am rek day wax ni day wax ni day wax ni loolu ndaw na bàyyi ma am leen lépp loolu. donc noonu la mës a mel nag Matar bu ko xamee ba tey noonu la mel vraiment moo tax yàlla koy dimbali lu mu def rek affaire bi yàlla si def barke quoi vraiment. Grand Demba gise léegi maestro nga ci mbir yi yàgg nga ci jeune artistes yi nga xam ne tey lan nga leen di conseil liggéey ak fulla ak fayda personalité donc euh, fexe nag gëstu aussi bu fekkee ni euh, defaguloo defaguloo defaguloo li nga xamante ni que mooy euh, maanaam ma ma defagoo dara ba Sénégal yi àdduna bi yëpp ràññee la da ngay fexe d'abord avant ngay génn xam lu bari leen di xaw a sonal. da nga jékki-jékki génte pareeguloo nit nag balaa moo pare day dem liggéey ji liggéey bi nag mooy gëstu donc euh, xool fan nga mën a dolle sa xam-xam par rapport ak conservatoire ak yu mel noonu pour mu mën a dolleeku ci li nga xam quoi mais daal pour wax rek ni musique moom du foo du caaxaan donc il faut nit ki góorgóorlu pour mën a am dara quoi. musique du foo du caaxaan il faut ñuy lu métier la comme ñëpp ku gis Sidi Diop euh, gis li ko Matar suba teel defal oto bi yànji bii mu ko may man dama gis oto bi dama bëgg a woy Euh, waaw aar bi dafa yaatu mun nga way mun nga way waaye xam naa ne tey euh, yombul quoi Matar lu may si war a dox ko may parce que rakam la en plus Matar fam yéene waaw man xam naa ko nag avant yi si di yëg yëpp quoi Matar man ak moom dafa yàgg xam naa daal lu mu am tey. dara jomb ko que dafa am si loxo yu mu jaar yu bëree bëri bëri Matar Diop dafa am si affaire yu jaar yu bëri bëri xam xam fu affaire toll donc bu defee lu mel ni label euh, euh, euh, suba teel lu mu ci am rek man duma jaaxal maa la wax li waaw mais mais njàpp addiya Cheikh Ibra addiya Cheikh Ibra Alaaji Bassung amal fan seer ngaay bi rek ñebe nga ca Amath Fall Seer Ndiaye fi la jëmee nga cangaay kii nga doon interviewer daaw na Sénégal xam nañ ne réew mi bu bëgg a xew foofu tudd donc Equivox su ñëw ci mbir mi ah man nee naa Matar suba teel la mu def neex na ma ko jëm neex na ma waaye sa kii laa doon xaar très bien waxoon naa fi je suis le danseur du peuple yaa may dégg dama ne waxoon naa fi je suis le danseur du peuple léegi loo gis. moo biir nga ko. léegi loo gis. non fi am keneen nekku ma nag. ah.